mbokk internautes yi dal leen nag jàmm Ousmane Sonko ci projet am euh, daal di nag nekk ci candidature am ci élection euh, présidentielle yu atum deux mille vingt quatre moom président bu Pastef ne ñu nag modifié na agenda am xaat moom Ousmane Sonko récemment la génnoon euh, génne woon benn circulaire ngir daal di nag décliner feuille de route bu partem jusqu'à ci présidentielle bu deux mille vingt quatre ci nag menu renouvellement instance yi bokkoon na ci. mooy instance de base yi mise en place benn nouvelle direction investiture pour prochaine course au palais euh, ci agenda bu leader des patriotes bokkoon na ci benn tour du Sénégal bu ñu bu ñu woon dans trois mois calendrier bi légèrement la ñu ko modifié moom moo ko xamle neen nag annoncé woon naa benn tournée pour le mois de novembre mais euh, euh, date bi dama koy daal di avancé pour mois de septembre bii ñu jëm bu ñu sukkandikoo ci Ousmane Sonko démb la ko xamle mercredi bi ci benn cérémonie mouvement des sages de Pastef ginnaaw installation bu assemblée nationale nee na nag dinañu jël départ ndax amatuñu temps bu ñuy perte dem def suñu tournée boobule assemblée nationale dinañ ko installé le 12 septembre bi ñu daal di nag jëm président Macky Sall daal di jël ab décret ci loolee publier ko démb Ousmane Sonko annoncé woon déjà candidature am pour présidentielle bu 2024 mais nee na nag dafay daal di défendre couleur bu Pastef dinañ ko ko daal di euh, désigner officiellement le premier juillet deux mille vingt trois euh, ci nag congrès d'investiture boo xam ne dañ koy daal di nag def ak euh, renouvellement bu direction bu parti bile Ousmane Sonko la tax mu changé programme am ak agenda wam xamuñu lan moo tax en tout cas daal jàppale ni la mu décidé woon finalement daf ko mujjee daal di nag soppi. mooy ne léegi nag dafa daal di wax ne rek il faut que mu daal di modifier instance parti euh, bile waaye nag euh, base bi dañ koy daal di gën a dëgëral ginnaaw nag sages yi nga xam ne démb ñëw nañ gi dooleel si ko euh, te itamit mouvement des jeunes patriotes itam dana dikk ak yeneen i itam instance yoo xamante ni ci parti bi dinañ wane seen bopp bu baax a baax ci nag investiture yi nga xam ne dinañ daaj ki nag dem ci atum 2023 bi nag la nara daal di sumb loolee lépp négatif ndax nee na temps bu ñuy perte amatul fu mu toll nii nag ci lu nekk nii mooy daal di nag gaawantu gaaw dépêché wu 2024 mi ngi sunu kanam yàggatul te il faut que ñu daal di nag gagné te moom Ousmane Sonko sax nee na nag moom leer na ko ne euh, victoire bu Pastef les patriotes euh, pour 2024 loolu ab victoire bu imminente la amuñu li nga xamante ni moom mooy li ko mën a daal di nag euh, gàllankoor leer na kon naa ñette si loolee itam la na daal di nag sukkandiku euh, tey journaux yëpp moom la ñu xëy bind waaye jàppale ne agenda am daal modifié na ko